you Ousmane lii lan la. waaw xamna gis nga ko rek gis nga tay commune Kër yaaka na naa gis bokku ci tay sama xol dafa sedd ba xaw ma lan la wara wax tay dama wax ni commune Kër 47 car ñëw na oto yu ndaw yi nekk na 38 bokkut ak jakartaay ak moto yépp tay bo sand mbaatu mu tag yaaka na li xaj ñu place de France mo ra ñu extra leen fi bu ne jëm na ba fa extra ci biir kees mais bu ne place de France xaj ñu fa ñu ñëw nak andi leen fi nak extra leen fii yaakaar na yaak gis boo gisee lii nag ñun dañu gis président Macky Sall muy président boo xamante ne nii vraiment ni mu téye Sénégal vraiment président bu dal bu teey bu yaru bu nungoo liggéey donc boo xoolee Sénégal gépp man li tax ma ànd ak moom c'est un promoteur immobilier liggéey moo tax ma ànd moom mais Sénégal yi ñu bëgg mënul nekk parce que kenn ku ne naa nekk député naa nekk ministre naa nekk lii mais bu fekkente ni Sénégal moo la ñor kon réew la moo xamante ni jox ko dal ku bari xam-xam ku teey ku mën a liggéey mais nag réew mi du ñu ko foyee nan dem lakk nan yàq nan sànni nan dem moo tax ndaw ñi tey gi nga ko ndaw ñëpp ñëw na tey jeunesse bépp bépp génn naa leen jeunesse communautaire loo kenn desul rawat na Amazone yi gi nga sol lu yi yor musóor mooy Amazone yi laa bëgg ñu dem ci ñoom ndànk-ndànk waaw Amazone yi mën nañ dem ci madame le mun demee ci yi gis nga leen ñoo ngi nii ñu ñooy waa Ndiassane waa Gété gaa ngi nii ñu ñooy waa Gété gi Ndiassane dëkk Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ndeysaan ñu ngi nii ñoom ñi Amazone yi ña nga ñu leen ci madame le maire euh, Amazone yi wax yi donc vraiment lii moom tey foo sànn mbatt mu teg lii paysan rek moo ko man ndaw ñi ne ñoo wàññiku bëggaat ñi waaw Amazone yi ñooy sollu ñoom ñoo nekk Amazone yaa ngi ni ñi ñoo Amazone yi tàccu leen seen bopp Amazone yaa ngoog sollu bulo yi Amazone yi ñooy sollu ñoom ñoo ngi nii Amazone yi ñoo toll ñoo sollu bulo yi yaa ngi nii Amazone yaa ngi yaay leen seen ñëpp moom lañu tey boo sànn mbatt mu teg ñoo ngi nii Amazone yaa ngi nii donc léegi ah, ñu jox madame Ndeye Awa. Ndeye Awa affaire noo ko gisee. waaw ah, sant yàlla bu baax rek bu baax a baax kontaan ci suñu bu ñaawul monsieur le maire le maire des maires le meilleur maire soppe monsieur soppe son excellence président Macky Sall mu ngi liggéey liggéey bu am solo fii ci commune Chérif Lo boo gisee mobilisation bu mag bii di xam ne liggéeyam moom ñu ko may tey jii tey lii yombul 30 car. nga def ko ak ay 4-4 def ay bis ñëw fii xam ngay lii yombul moom moo ko mën te rek moom moo ko maye. ànd koog les amazones de monsieur le maire Ousmane ngay amazones yi ñi ngay amazones yi ànd ak Ndeye Fatou ci commune bi développement ak lépp loo xam ne luy soqale réew mi la waaw macha allah. waaw ñu ngi remercier ñëpp vraiment bu baax a di ci teeru bi ñuy teeru suñu président Macky Sall di bég bu baax a baax a baax ànd ak moom fu nekk wax dëgg yàlla bëgg ko ci suñu xol yi gis li mu gis li mu réalisé bu baax a baax a baax ñu ànd ak monsieur le maire àndoon Amazone yëpp ci ginnaaw monsieur le maire la commune de Cherif Lo Ousmane Sarr ñëw pour teeru suñu gaynde gi moo ñu fi indi waaw ndeysaan monsieur le maire Ousmane Sarr ah gis ngeen mbooloo mi fi wàcce yaakaar naa ne tey jii Thiès gis ngeen ni ko monsieur le maire Ousmane Sarr def yaakaar naa ni kii mooy gaynde Macky Sall gi kii mooy ki nga xamante ni mooy liggéeyal Macky Sall ci réseau de Thiès ci département de Tivaouane ci commune de Chérif Lo dajale 53 villages yi fi Chérif Lo mobiliser leen ci li mat ñetti fan. mu mobiliser fi mbolo mu melni nii kenn du maire Ousmane sar bo xolé li tay ji li ko dalee fële ba fii ñëpp a ngi ànd ak monsieur maire Ousmane sar lolu nak nek na lo xamanteni vraiment lu doy war la monsieur le maire Ousmane sar gaynde ak Macky Sall gi bla Macky Sall amul woon xawmu ni nu def monsieur le maire ya sigil Macky Sall ya terel Macky Sall ya dooleel Macky Sall département de Tivaouane bu fi monsieur le maire Ousmane Sarr amul woon tey jii ah dina nekk tey jii loo xamante lool xoolal lii rek mbooloo mi yëpp foo gis. Mati, mole. waaye suñuy ñëw am doole lay ñëwee nag. dañ maa limité de. dañ maa dañ de. man mën naa def si leen joxal kaddu yi. maa ngi gis le commandant Maña Ndiaye. commandant corps bi mi ngi nii taxaw di joxe ay moom itam. oh mi ngi noonu président ngi noonu ah tey tey blazer la def ak simis blanc. kii di président rek. daa ngi noonu c'est la président ngi noonu di saafonte nit ñi. am na ñu muy waxal. di leen loxo. a a jàll. Ah, waaw ñoo nañu xool daa koo jël daa sama saako waaw yow gis nga ñu noonu Moussa Mbaye baal ma sama cameraman sax mi ngi naan yaa dugg sama sang ñu ngi téye cameraman yi di public bi public bi nag dañoo dagg ñu ngi dagg bëgg a bëgg a Hakim Hakim maa ngi koy seet sai, goleiro! Obrigada.